asalaamaaleykum internet Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di kontaan rek euh, saa su ne ñi ngeen ñuy suivre ci noonu tamit ngeen toppee suñu programme ak waajtaayu tabaski tabaski na des ay quelques jours mu nekk fête des wante it feddee mouton boobu def ci am benn xar bu particulier bu ñu ne xar bu particulier xel yëpp dafay dem ci abu Kane abu kan nag instant bi mu ngi yëngal internet bi ñu ngi koy tiktok ku ci nekk yaa ngi joxe sa commentaire moo tax tey ñu ñëw seet si ki nga xam ne moo moom Abou Kane ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ak internet Senego TV ak Kawtef ñu dugg ci waxtaan bi Siré ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax. Ah, asalaamaaleykum Dianké maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu Sénégal yëpp nuyu mbokki àddina dalal fii. avec un grand plaisir le les bras grands ouverts à la bergerie alhamdulilah de Siré bac léegi moom xam naa ni bac bac plus la parce que bac ay frère la bëggee ñëpp la ndax eh, am na ay pàcc pàcc yëf yi gën na yaatu au début man la woon rek mais alhamdulilah léegi sawarkàlla njaboot gi yaatu na ñu ngi leen dalal bu baax baax waa Sénégal di leen jaajëfal te di leen kontaane seen teewaay. merci beaucoup euh, tey dañuy ñëw rek dugg ci wàccaayu tabaski bi gis nañ ci gëtt gi bu ma ko mënee tuddee gétt parce que moo wolof bu profond la <laughs> mais tey bu ñu ñëwee gis nañ fi xar yu bëri euh, njëg bi nan la demee yomb na wala clients yi ñu ngi ñëw. waaw ren nag yàlla dogal na xaw xaw a cher waaw mais li ko waral itam euh, xaw na bëri boo on peut prendre de concepts en compte aliment bi cher la ngooñ gi à à ce moment ñu jëndee sac bi 7000 francs excessif donc xar yi mënuñu mënuñu yomb mais nag ñun bu li bu ñu sañoon en tant qu'éleveur et en tant que sénégalais autosuffisance en mouton la ñu woote et on est des éleveurs ñun nee leen ñàkk xaru tabaski ñàkk ci ci ci réew mi sunu gàccee la du suñu dàmm ndax loolu mooy suñu métier buñ sañoon ñëpp ñëpp am une famille un mouton buñ sañoon ku bëgg a tabaski tabaski moo tax ñu ngi def suñu kéem kàttan nag di jéem a xool euh, nu mu gën a yaatoo rek ak nuñ ko mën a kiiwee ba père de famille bu ne au moins nga am xar bëggale ko sa njaboot te yàlla na ko yàlla def te yombalal ko ñëpp incha allah waaw prix yi nag xaw na xaw na kii mais ñun ñu ngi déparé entre cent cinquante deux cent ba deux millions un cinq cent deux millions moo nekkoon sama baar waaye ren à notre grande surprise abukat mi nga xam ne <laughs> moo dem di jar ay millions ci saw sama kaw maal yu mag a mag yi mag yi bon loolu nag xam naa ni effet TikTok la gis nga réseaux sociaux yi li ñuy def parce que abu man indi naa ko mine de rien cinq opération tabaski def na ko man mu yàgg ci man mais daaw ma ko dugal ci TikTok ak yooyu ren laa fal un de mes jeunes frères ku baax ci man nag di sama xarit di sama séddoo bu ñu wax Jibril Ndiaye moo ñëw man aw ma sax TikTok jël ko ci compte am partagé ko waaw faf yàlla dogal lii xew ci ku nekk ñëw na fi koo xalaat ak fu sa xel dema ku ne ñëw na fi seet dugg dinañ ci dugg bu baax ñu taxaw gum rek ci côté clientèle bi est-ce que ñu ngi ñëw parce que dañu naan dëkk bi instant bi dafa métti en plus aussi crise lañ nekk entre guillemets. waaw dëkk bi nag wax dëgg yàlla sentir nañ ko métti na moo tax euh, ñu war di ñaan jàmm Sénégal dafa tuuti mu sommes un petit pays ñu lu dul jàmm xajul ci ñun yàqu-yàqu yi as néew li fi jot a xam rek ñëpp sentir nañ ko te ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay koo fi yàqal rek am na ku mu xam koo xam. mbaa mu mbokk koo xam ne sa mbokk la donc yàq gi daal jaru ko yii nag mun ta ñàkk tension ak fitna mënta ñàkk léeg-léeg yàllaa bindee noonu ah, dégg naa sama maam Serigne Cheikh Tidiane si almaktum mu ne yàlla rek a sañ mu tàqale ñu ba pare ne bu leen tàqalikoo waaye loolu aussi ça s'explique ndax suñu borom day bëgg a yar volonté ci doomu aadama moo tax mu jëfee ni mel waaye li yëpp bu weesoo ñu xam ne bokk lépp ku yàqal sénégalais bi koo yàqal rek yàqal nga sa bopp noonu tam ndax nous sommes tous des sénégalais te gëm naa ne réew mi mag ñu baax ñu fi am sunu maam Cheikhul Khadim tëdd fii alaaji Malick Seydina Limaamu alayhi salaam Bou Kounta Ndiassane maam Ibrahima Niass je pense cité et d'autres d'autres ñëpp war nañ mën a xool nuñ koy rafetale ba ñoom liñ fi liñ fi ñàkk liggéey ko fi ñu continuer nekk ak réew mi ci dal dal la ñu xam jàmm la ñu xam te moo ñu jik Sénégal jàkkaarloo jàmm rek ko jik ñu delloosiwaat xel yi te gën moo tax nag crise bi xaw am te yëg nañ ko ñëpp ko yëg jaaykatu xar mi yëg na ko tailleur bi keneen ak keneen tabaski ko wax la crise bi te du dara lu dul lu gàtt li fi jaaras néew waaw vraiment. solo rappel boobu parce que aussi instant bi foo wax rek même chose lañu lay wax bëgg nañ xaar mais coût yi dafa élevé en même temps aussi euh, rapport qualité prix bi ça laisse à désirer xaalis dafa manqué tout mais tey lu xaalis manqué manqué gu gëtt bi bu ñu yegsee fii abu mi abu mu ngi jar. <laughs> abu moom gëm naa ne fi mu toll que gënu maa cher man mi ko moom <laughs> gars yi dañ yaakaar ni ma dalal seen xar xar bi dara neew ci man maa ko jëndoon pour le plaisir <laughs> yàlla dogal ma yor ko lépp juróomi at mu nekk ak man yàgg na ñëw opération tabaski aussi su ma jumul bii may cinquième année muy ñëw ci opération tabaski chaque année ma génnee ko bu ma paree delloo moom kër ga mu ne ma miin waa koñ ga miin waa kër ga ñëpp xam ko bon ay di ñëw mooy proposé ma ci ay millions mais man dama dama dama tiit am na koo xam ne waaw am na koo xam ni nee na ma c'est un dafa ñëw gaare otoom ne ma dugal bon maa ngi xaw xaw na hésité sax xaw xaw xam nga rek nit koo xamul ma dugg mu nekk ci sérieux boo xam ne ba pare génne xaalis woon ma ne ma loo ma jaay abu ma jënd ko ma ne ko mu bi xar mi jaayul te xar mi su ma ko moomoon sax wax dëgg yàlla tey moomatu ma ko xaru askan bi la xaru sénégalais la et il est disponible ci opération tabaski bi ku ko bëgg gis nga ñëw fii ñu ngi euh, après juste école Yàlla Sirène ci buntu CM Adama Diallo wetu Mamadou Binta bu ñu fi jógee itam ñu dellu bergerie bergerie ba ñoo ngi yow Parcelles Assainies unité 10 koñu Modou Lo boo àggee kër Modou Lo rek xoolal bu tourné sax gis nga oto yi di gaare kilifa bu ne gaar na abbu la ñu laajte man kenn laajteetu ma man daal xar bi xam naa ne bu dee lu bay rek ñu ma mayoon ma waroon kookoo sango dama koo këpp <laughs> jëndee ma ko woon presque du 30 000 mais léegi valeur am romb na 5 millions proposition bu ne am na ci ba tey sama Pape Aboukan sama nijaay sama xarit bi ma ko tuddee muy président wala l'ancien président des éleveurs de la l'ADAM nekk actuel président de de de la FENAFO mooy fédération national des éleveurs moom laa ko tuddee woon dik ko tooñ ndax sama nijaay la euh, ma xawoon koo yem nag di ko sànni faf ma ne ko xar mi yow laa koy tuddee waaye gis nga yàlla sutura sim si def moom itam ma koy jaajëfal ndax kilifa gu toll noonu di ko euh, xam mu xam ni lii tooñ laa ko jëlee mu nangul ma ko dafa yombul am na keneen ku ko doon tuddee mu gis ci boppam waaye mu nangul ma ko nag ba yàlla def ci lii yëpp xew ci tey proposition yi ñu ci am ma nag moomatu ma ko maa ko jëndoon dem sama 30 000 waaye léegi sénégalais yëpp ko moom abu abu askan bi la mi ngi dellu kër ga ku ko bëgg a gis na fa ñëw ça va être un grand plaisir ñu may la nga visiter ko waaye xam naa ne daal foog ñu defal ko corridor wala président Macky Sall ma daal xam ma waaw wala ko jàppale sax mu accompagner xaru président bi ci ci tabaski ba pare après waaw ah, c'est possible dinaa wax turandoom mu dox loolu bu ñu yóbbu comme turandoom a yóbbu xaru président bu ko yóbbu daal ñu feex abu accompagner ko incha allah incha allah moom ban ban race la abu euh, je pense race bu Casamance bi race ndaama bu Casamance bi daal fa lañ ko jëlee woon am na fa nag dem naa fa euh, daaw rek fekkaat naa leen fa bëri na fa waaw waaw boobu la cher bu nekkee dem nga ba di ko jaay parce que jamono ji wax nga ñu ne instant bi abu doo ko jaay proposition ay cinq millions yi quelque jot nga ko mais mais dans l' avenir en fait dans l' bàyyi leen rek ma wétali kooku waa vraiment xaalis gi neex na trop kenn bañu ko te tey sax sax bu bëri leew ma ba bañ koo téye mais nag yaa am na lu gën a fort parce que lii su ma ko jaayee c' est sûr que dinaa am retour yu bëri te ki nga koy jaayee da koy yóbbul njabootam. ñu koy wétalikoo rek ndax mënu koo jëfandikoo kii bu dee pour yàpp rek daanaka ndawal li bariwul donc plaisir boobu mu koy octroyé ay doomam parce que kii ma lay wax noonu sànq doomam la ko doon bu jigéen moo ko ci sonal man itam sama njaboot gi rek laa am ak samay am di jàmm donc ñoom itam ak ñi nga xam ne sénégalais yi koy bëggee yëpp naa ko fi bàyyi ñu bokk di ko bëggee ñun ñëpp rek waaw ba keroog li yàlla di dogal waaye jaay gi moom du mën a nekk sincèrement jarul sax kenn di insister pour ku seetaan kii bi parce que j'ai eu trop de coups fil loo xam ne ñoom ñëpp ay kilifa ak lu ne abu rek lañ may laaj ma wax dëgg yàlla jaay gi yaakaaruma ko du mën a nekk retour Abou xaaroon nga ko parce que depuis tout à bi ñu taxawee ñuy gis ay appel vidéo ngay wone Abou ak yeneen vidéo yoo xam ne euh, nit ñi dañuy ñëw ba fii rek pour gis Abou. soxna si euh, keroog am na ku ma yee à quatre heures du matin insisté mooy États-Unis laa nekk dimbali ma rek utal ma vidéo boo xam ne da nga ma ciy tudd tudd ci Abou <laughs> ma statut ko ma ne ko waa soxna si naa ko ma ñëw téye Abou na ko suba fàtte naa tur bi ma lii tur bi ne ko diw mi ngi lay nuyu mu ne ma maa ko loolu moom nga baal ma sa problème no non macha allah daal macha allah xaaruñu ko woon nag waaw sunu borom rek ak ni muy jëfee yàgg na fee ñëw peut-être yàlla ren la dogal mu mu génn ak ku ci nekk sa waxtu pour wax la yàlla nu muy nu muy dogalee rek. waaw mais macha allah vraiment sénégalais yi accepté nañ ko retour yi bëri na lool lool lool ren jaayu ma benn xar ku ñëw abu nga may laaj nañ jënd ci sama xarité bàyyil ma abu mi ah mais daal macha allah xanaa ma koy jox président Macky Sall rek mu nekk saraxu réew mi <laughs> ba tey ci abo lan mooy particularité am parce que parfois da ngay yar jur mais da nga ciy gis boo xam ne dalay lay tàq da gis boo xam ne day agressif mais abu ñun bi ñëwee dafa fas kanamam. non waaw waaw bëri na mais loolu est-ce que du est-ce que ne turandoo nag daa fort juróom-ñaari jukk turandoo gi bëri na tiitër mën na fas kanam mën na doser xam nga dans tout ak ku baax la. ku baax la man sama nijaayu bopp la waaye ngand ngandul gi xam nga rek. tukulóor yi sax naka jekk ñoo moom noonu gis nga boo doon yëg car rapide sax xoola kii toog ci wetu chauffeur bi tout le temps tukulóor lay doon sama nijaay abu nag loolu la moom laa tuddee xar mi faf yàlla def ça a été un succès tooñ laa ci jublu woon moom itam macha allah je répète encore la répétition et pédagogie mu nangul ma ko faf yàlla def ci lii tey tout le Sénégal en parle moom sànq la fi ñëw ne mu kilifa bu ne woona ma ndax ne ma ndax xar bi day jaay uteeg man li ma jot moom mi ñu ko tuddee sànq yaa même pas jaar na fi wax ma loolu ma kaaw xar mi jaayul fi mu ku ci fayoon 20 millions duñ la ko xar mi moom jaay naag fi bàyyi sénégalais yi bégal ko te ñu ñaana ko yàlla yàlla guddal fanam mu yàgg ñoo bégal ñun ñëpp parce que ku nekk nga ci gindi bu gis boppam stress bi mu ñu dindil ak yéen ñii mu ñu indil loolu moo ëpp valeur cinquante millions man moo ma gënal cinquante millions boobu donte denc ma ko waaye nag yàlla baax na waaw tey tuddee nga ko Abou Kane <coughs> mais aussi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ruumanaat beneen tuuf ci suuf parce que xam nga Sénégal dañoo mun tooñ <laughs> yëg nga boobu. bal la bal la bëri na de non non rek bëri na. Eh, Birane ban tur lañ joxaat abu ban koko laay la wala ban. mbaaru ah. ah. <laughs> ndaamal Thiès waaw <laughs> ah, réew mi mun naa wàcc ay loxoom nag def leen ndànk de te man bëgguma ku yóbbu. mën naa wàcc kii <laughs> mën naa wàcc ki ngeen bëgg a tudd de ah waaw xam naa bu dee la président Idriss Seck moom itam sunu sunu sunu sunu papa la ndax sama maam moo ko yar góor gi Abdoulaye Diagne Kang bu croisement Ngoundiane ñu koy ñaanal fan wu gudd ah, ak wér gu yaram kooku man mooy sama maam te kooku idi doom la ci moom ah donc kon xar yi xar yi mën nañ xar yi mën nañ lu ne waaw encore une fois abu abu abu indi nañu bu nekk waaw bu fekkee tudd tur bu ne daa tulee nañ ko muy Idrissa Seck di kële ki nekk assemblée Abdou Mbow la si si waaw waa APR moom la man tur bu dégg xam nga yi dañuy tooñ voilà moom la Abdou Mbow la waaw Abdou Mbow ak keneen ak keneen ñu ay koko laay laay am na ku ñëw ne président Idrissa Seck ma ne ko defal nànk réew bi mën naa wàcc ci ay loxoom de on sait jamais comme ci ay élection lañ jëm ñun moom nous sommes des sénégalais nag kii gën ci ñun rek yàlla na ko yàlla teg suñu kanam te réew mi avancé loolu rek lañ soxla xale yi liggéey réew mi naat ñëpp am jàmm kon nañu ñaan rek li gën nit des fois sa bëgg-bëgg du doon sa ngeneen waaye yàlla nañu yàlla ñot di suñu ngëneel ba réew mi ñu dem ci ay ci jàmm ki ko moom te mu gën ci ñoon yàlla defal ko ko et qu'on avance daal ñu liggéey rek lañ bëgg bëgguñ dara te kuñ ci jàppale ñu jël ku ñu mën a jàppale nag ñun les jeunes sénégalais ñu liggéey bëgg nañu parce que sénégalais ku am jom la man ak samay morom ñun xale yi surtout la génération bu mujj bi xale yi am nañ jom mais dañ gisul suñu jàpp waaw man jàng naa ba yor samay diplôme ñëw nekk éleveur keneen ak keneen noonu parce que dañu bureau yi xat na ñëpp xaaj ñu ci nañ wàcc itam ci yeneen métiers yi dem sàmmi waaw dem bay surtout bay mi gisuma ci ñu bari te pourtant suñu maam yi am nañ tool yi ñun ñoo fa jubluwul rek mais yooyu yëpp nañ jël perspective yooyu yëpp boole ko ci suñuy kii dans le futur ngir réew mi mën a naat réew mi ay doomam rek ko mën a naatal kon yàlla ñu yàlla dimbali ba ñu góorgóorlu ci loolu yàlla doolu ñu sutura euh, sàmmal ñu lépp daal barkeel sunuy mbir bàyyi fi ñëpp ba ñu yàgg ko teewe ñëw fi di ko ànd ak di ko ànd ak abu te yéen itam yàlla jox leen ay tele lu ngeen bëgg daal yàlla ko yàlla def lépp naat incha allah. waaw maa ngi nuyu internautes yëpp di leen jaajëfal encore une fois mais aussi di jaajëfal surtout surtout sànq maa ngi koy wax ñi ma bokkal bergerie bi. samay rakk lañ am na ci ñoo xam ne sax ci ci âge ñoo ma mag samay mag lañ ñi samay rakk leen ma bokk ñoom lépp ñu bokk ndey ak bàyyi bokkul lépp ñu bàyyi seen lépp su ma xasee yëkkati dara rek ku ci amoon liggéey sax di nga stop. ñëw jàppale ma ci lu donc loolu aw ma fayam su ma limee rek damay jum mais bergerie alhamdu on est une famille une famille très waaw lu lu dagg lu ne morom ma lay fekk te genn golo lu mu gudd gudd loo ci laal mu yëg ko peut-être yàlla moo mënta ñàkk sàkk njiit tey maa nekk ci kanam loolu la yàlla dogal waaye duma ci dara du ma ci dara bu dee cent zéro virgule zéro zéro sax nekkuma ci sama force ñoom la ñoom ñoo may tax di sonn ndax bu dul woon ñoom ba léegi bàyyi naa ndax te xam nga rek Sénégal li mu doxee léeg mu xaddi léeg-léeg nga métti léeg-léeg obstacle yi da ngay bëgg a mais boo gëstoo gis li boot sa ginnaaw yëpp day tax nga gën a góorgóorlu jéem a jéem a gën a am dëgër laay waaw di ñaanal waajur yi ñoom itam boobu ba léegi ñoom la yàlla na yàlla yokk seen sac yokk seen sutura bàyyil ma leen fi ba ci kanama a kanam di ñaanal sama maam Alaaji Mansour Mbocc mi nga xam ne lu ma am ci xar gannaaw yàlla loxo ma gannaaw yàlla barkee ma yàlla ñoddi fanam bàyyi ko fi ba mbébétam yëpp daal ci njaboot gi yàlla boobu sama maam góor gi lay Diagne mooy sama xarit ah, di sama wéttal moom tam yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak sénégalais yëpp waaw yàlla bàyyil ñu fi suñu mag ñu baax ñu ñu am suñu xalif généraux yi suñu maam sëñ Muntaxa sunu maam sëñ Babacar Si mu cheikhul xawmi Alaaji Mansour bu Seydil Hadj Malick ak ñëpp ak ñëpp ak ñëpp ak ñëpp Sénégal naat yàlla dool ñu jàmm ak sutura bu yaato yaatu ma lay jaajëfal encore une fois jànke di jaajëfal mbokk Sénégal yëpp ak mbokki àddina waaw fan saa bu yëpp nag aboo ngi nii du ma ko jaay di ko xañ kenn ku bëgg daal wooteel sama numéro c'est le 77 444 44 76 incha allah ñu defal la vidéo spéciale pour yow pour Abou sinon Jibi Ndiaye mi ko doon dugal dugal TikTok aussi numéro am c'est le 77 791 70 61 ku bëgg a jokkoo ak Abou après la tabaski rek woo mbaa woo ma directement incha lu ngeen ci bëgg daañu leen ko defal et avec un grand plaisir merci bien